différence. Ndeye Mariam Ndiaye dalleen ak jàmm tey jii ci biir a juglikaay bii di ci quotidien professeur Abdoul Aziz Kébé le fa vieux savane di dalal moom nag ma ngay ñëwaat ca xew-xew ya amoon ca Mali rawatina nag ci dëkk yi di Tombouctou ak Gao professeur Abdoul Aziz Kébé mi ngi ñuy xamal ne la xew foofu nga xam ne moom mooy ca ñaari dëkk yooyu de suñu moytuwulee mën naa xew fii ci suñu biir réew moom mi nga xam ne nag moom moo jiite département arabe ci université Cheikh Anta Diop ne foofu salafiste yi ñoom ñoo fa dugg te nemmeeku nañu nag ne fii ci suñu biir réew am na ay école franco arabe yoo xam ne ñu ngay jàngale lépp lu jublu ci wàllu mbirum salafiste yi rax ci dolli sax nee na ñu am na benn collège bu nekk fii ci biir Dakar yoo xam ne nag ay salafiste de ñoom ñoo ci dugal seen loxo ba léegi ki nga xam ne moom mooy professeur Abdoul Aziz Kébé daal dina ci yokk di wax ne ci biir l'école yooyu de ña fay jàngale nag ay mbir yoo xam ne nag dañoo wuuroo ak li nga xam ne nag moom la ñuy dëggal fii ci biir réew mi même su fekkente ne sax foofu dañ fay jàngale alxuraan ak xadisu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne nag moom mooy professeur Abdoul Aziz Kébé ne faw ñu moytu faw nguurub Sénégal tamit def très attention ndaxte ñooñu nga xam ne ñoom ñooy salafiste yi de su fekkente ne nag bàyyi nañu leen ñu dëggu fii ci suñu biir réew kenn xamul nag lan lañ ñu fi mun a indil vieux Savané ne dafa mel ni sax ne fu mu nekk ni moom am na ay mbir yu tuuti yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci biir réew mi wante dafa mel ni sax ni yëngalul ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñu jiitee ndaxte nee nañu foofu nga xam ne moom mooy ci kuréel yu mel ni Boko Haram ak tamit ak mi am na ay sénégalais yu bari yoo xam ne nag ñi ngi ci biir te suñu moytuwulee sénégalais yooyu mën nañu ñëw nag fii ci biir réew mi lëkkoo ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo leen fi toogal ngir fexe nag ba indi ay mbir yoo xam ne daal du ñu xam fan lañ ñu jëmee loo sama moo tax ba professeur Abdoul Aziz Kébé di woon ak nguurub Sénégal ngir ñu jël seen matuwaay fexe nag daal ba li ni mel moom du mës a am fii ci biir euh, réew mi ëtuglikay bii di réew mi quotidien nañu nag tey jii moom moo xewoon keroog bi amee ñaar nee nañu ci diggante boobu dee maître Abdoulaye Adda xaay boobu dañoo ne woon nag dinañu tabax vingt mille logements wante ba léegi de deux mille soixante quinze de leen ci jot a tabax loolu na moom moo tax ba Khoudia Mbaye daal di ciy gis xay ab lay la woon de ngir fexe nag ba jëlee ñu bëri ci ñi nga xam ne nag dañoo nekkoon ci mbënd mi wante dafa mel nii ne ba léegi nag am na ñoo xam ne ña nga des ci mbënd mi ci wàllu googu sax dañ ciy jukkee ko cuglikaay bi di le populaire ndaxte mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw taw yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci ñaxtiwulaay bés bi ay yàqu-yàqu yu metti la ñu nemmeeku fa li nga xam ne moom mooy ca Bambey ak tamit ci diwaanu Touba juglikaay bi di le populaire nañu nag gox yu bëri yu nekk nekk ci biir ñaari diwaan yooyu de ndox ba dafa dugg ba fees fa dell loolu sama moo tax ba ñu fa dëkkee sax mujjee woon jël seen i bagage daal di fay euh, jógee ëcëglikaay bi di enquête ma ngay ñëwaat nag ci ab l'enquête boo xam ne def nañu ko nag jëm weesu benn milliard ëcëglikaay bi di enquête mi ngi ñu xamal ne dossier baa ngi ci table procureur te suñu moytuwulee nag ki nga xam ne de moom moo jiite woon PCRPE dina nag yëy yàbbi ci mbir gi ñu wax ci wàllu wér gi yaram ak ëcëglikaay bi di yokku na bu baax a baax ndaxte ci atum 2006 ñu ngi toll woon nag ci 12000 wante ci atum def nañu ko ndaxte ñu ngi toll ci 24000 wante bu Diop moom mi moom mooy daal ne ay jéego yu rëy nag war na bëri na yeneen diwaan yoo xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi ret bëriw dara jeexalee ko cuplikat yi xamal ne ay avocat wu Cheikh Béthio Thioune nañu ataaxal jëmale ko ci nguurub Sénégal ndaxte ñoom nee nañu nag compak ñooñam ne leen ràpp ci biir kaso ndaxte ba léegi mënuñu fexe ba wax ndax cheikh bi taqal nañu ko ci ay yooyu am déet loolu sax moom moo tax ba ki jiite avocat yooyu di maître Clédor Ciré Ly daal di bind nag wax ne fu mu nekk nii lépp loo xam ne nag dal na kii di Cheikh Béthio Thioune nguur gi dong nag moom moo ko sookee nee nañu nag fu mu nekk nii liy jot jot na gannaaw de faw ñu daal di génnee Cheikh bi ndax ndaxte amul lenn loo xam ne tey jii moom mooy firndeel ne moom bokk na ci ñaawteef googu li ma nekkoon mbokk di lu kat yi li gën a fës ci biir